Siteu. Mhm. lan ngay wax man kay Tapha instant yi aw ma leen lu ma ko wax ci mikro lu ma koy wax si suuf laa ko koy wax man kay instant yi lu ma wax di supporteru Balla Gaye yi. waaw supporteru Balla Gaye def leen dina déggoo ma de Balla Gaye day nax ay supporteram moom lu muy xeeñ moom Balla Gaye lu muy xeeñ instant yi di diwoowu ko ah. waaw Balla làmb ji du mystique kese de entraînement da cee bokk entraînement da cee bokk xam nga Balla Gaye première signature ay supporteram ñëpp a découragé woon ñëpp a découragé woon ñu defaat face to face xam nga moom dafa mëne wax te Tafa moo mënul wax loolu ñun xam nañ ko ci Tafa ndax yàgg nañu ak Tafa mu dugalaat ay supporteurs ci làmb ji mais dama la ne day nax ay supporteurs am. Balla xam nga lan laa koy ñaan la 21 juillet lu mu def ci signature bi dëggal boppam. na dëggal boppam la 21 juillet. déggoo ma de ñëpp nañ ma. man ñëpp a xam. Lamb jaratul samay présenté wu. le 21 juillet. Balla Gaye su dëggalee boppam ma dóor ko daan ko. dóor mu daanu mun naa am. yëkkati sànni mun naa am. le 21 maay diriger. nappaaje mën naa am. déggoo ma de arbitre su soufflé bala na taxaw xaar lu ma koy ñaan rek mais mooy bu mu def comme Boy Niang bu mu def comme B52 bu Mbour. bu B52 bu Mbour moom dafa bañ tafaatin daan ko moom su ko laalee rek mu daw génn saako yi mais Balla Gaye gaynde la day taxaw xaar tafaatin te su ko xaaree rek dinaa ko duma. kañ ki jeexal ku entraîné wul nan lay daanee Tapha Tine Balla Gaye entraîné wul de day nax ay support ñun côté yëpp la ñu xam nga ñoom ci nan bàjjan am na ndey dama ne la am nan bàjjan am na ndey ah daawda bu bawol barki yonent bi Médine Médine yow da ngaa fekke mbojj mi daawda ah. bilaay dëgg la Médoune. Médoune ñaata la laaloo. Médoune danoo fonk bis. Médoune danoo fonk bis. danoo fonk bis dañ ko fonk ànd ak suñuy bokk. Médoune amatul luy deltu ginnaaw sas bi nu am mooy le 21 rek ñu tëral waa ji ñëw feete ko bawal amul leneen doxul xalaatuñ sax leneen ñun. waa ji bu bu bu le 21 baar bi génn seen diggante. ah nga xam ne billaay caaf mënatu jiw. daaw de le vingt ans yaakaaroo ñu miine leen. non non non non nañ ci làmb léegi. daaw am ngeen ay bàjjen Dakar. am na ni bàjjen am na ni ndey. Ndakaaru baaxeeb kenn moomu ko. baaxeeb kenn moomu ko. ah ñun dañoo paas wàcc am nañu fi ay immeuble léegi. danoo paas wàcc am nañu fi ay immeuble kenn ku ne bi nga ñëw ak mbuus nga yor. wallaay mbuus nga yor mbuus nga yor mbuus cent franc. tey kenn ko yaa ngi doon immeuble yor oto. Daouda. Ah. yow yow yow yow yow combat bi ni mu ci taxawee moo metti parce que kii tëgg combat bi ñoom Aziz Ndiaye mi ngi ngemb mi ngi ngemb Balla Gaye sa xarit rek. danoo xamante. danoo xamante xam nan ñoom xam nan ñun xam nan daaw ci dox a bëri laa man doomaat. da waaj waaj baa xam nga day waaj waa baa xam waaj de damay bëri ak moom xeexuma ak moom de. naw ñoo ñoom mbapat moo woon Sénégal maa fi dàq bëri. yow dafa du jóg na ñoo ñoom mbapat nan mbapat nan mbapat maa ngi moom 10 minutes 15 minutes ñoo xam ne maa ko dàq bëri. dama bëgg ñu mbapat 10 minutes 15 minutes ñoo xam ne maa ko dàq bëri duñ benn sax maa ngi dégg nag benn benn slogan mun naa daan na ko mbapat loolu fa la ma fekkee xam nga mbapat bëri na une heure de waxtu bëri nañ ko ci Balla Gaye ci Balla Balla Balla Ndour maa ngi koy jàll yàlla na ko yàlla xara àjjana foofu la tëkk di jooy naa waa ne ko ma koo daan une heure temps ni mosuma ko bëri ci lamb fii la ma fekk fa la ma fekk na bàyyi mi wax le mu am solo am di la am problème te am di daan rek le problème le 21 incha allah. yow kon boo soxlaa amatoo xarit. non non non non non déedéet déedéet xanaa nay ba le jàll on est ensemble. maa ngi maa ngi nuyu maa ngi nuyu sama DC euh, maa ngi koy nuyu waaye lay day xaar de. day xaar day xaar waaw day xaar <laughs> bi bawol la jëm. suñu jógee le 21 juillet. Tapha Tine su daanee Balla Gaye incha am nañu fi papa Dakar. waa bawol rek ñoo fi am papa te xoolal ñun ñooy kii nii mooy suñu papa ñun bawol bawol yi. waaw suñu papa ngi nii Modou est yaa ngi xool Modou yow gis nga suñu papa Modou yow lii yow gis nga suñu papa di nga wane yëpp gis nga suñu papa ngi nii waa gis nga ñiy toog naan nag fii amuñu fi papa dañoo réer mbir suñu papa ngi nii ñoo bokk bawol bokk yëpp bu ñu yaakaaree amuñu fi papa dañuy sóob gis nga papa jaa ngi nii te Balla Gaye nee ko dañuy dañuy daan dañuy ñëw nii est-ce que yaa dañuy def un un ba pare dañuy def dañuy def un pare dañ bu ñu paree dañ koy lebalaat ndax lañu kon ko yan moo diis waa géej waaye préparé leen barke yonent bi dañuy ñokkali rek di songale jëm ak moom bawal couronne bi. waaw Madoune man nag soo gisee ma jëlaat micro bi pour si sama jabar ji moo tax mu jabar Tapha jabaru Tafatine làmb ji su paasee dama bëgg Madoune ñu ànd nga jëli jabaru Tafatine. aywa jigéen ju jàmbaar a ngi noonu Madoune. Sophie dama koy ñaanal rek yàlla bàyyi ko suñu kanam moom depuis ba mu fi ñëwee amuñu defet te yal na jëm kanam mu nekk jigéen ju maandu jigéen ju jàmbaare Madoune man duma ne kenn yàllaa ngi nii te gisuma yàlla. mais jabaru Tafa dafa yemul seex si Tafa ci jàppale Tafa mais dama dem ba si supporteru Tafa man mi mu def ma rakk bu mu bokkal ndey ak baay Sophie Dione aw ma fayam dama koy ñaanal rek jaara ak Mouhamed yal na toog bu ñu nettali dara bu ñu seddali dara ci ginnaawam jigéen ju baax ngi noonu su may wax ci moom sax sama xol dafa fees ndax tey mënoon naa ñëw yàq sama digganteeg Tapha mënoon naa toog yàq sama digganteeg dafa mais defu ko tout temps moom may woo bi lii di waaj téléphone siga noo leen di programmer su ma ko ne waa Sophie yaay war a décider mu ne ma noono lépp jël naa ko teg ko sa loxo mos ngaa gis jabaru Tapha Tine si réseaux sociaux yi pourtant jabaru mbër yi gisuma kenn ku ko ci dàq jabaru mbër yi <laughs> te nu mu rafetee noonu la xol bi mel jabaru tafaatin yal na ko yàlla lafal cat yàlla bàyyi ko suñu kanam ba mu roi de arènes ñu jël seize bi dem jox ko Sophie Dione loolu rek mooy sama mbébét ak moom ndax man man siga en personne aw ma fayu Sophie dama koy bàyyeeg yàlla rek la 21 juillet bi gis naa lépp lum ciy daj te incha allahu rabi la 21 Tapha dina duma Balla Gaye ah daan ko bëgg naa nag Madoune nga ñëw ànd ak Sophie le 21 juillet ci guddi Madoune il faut nga génneel ma Sophie Dione. champion yaa ngi nii de. waaw maa lay ziar baax. ñu waaj nag combat bi. waaw bàyyiwuñ dara lépp la ñuy combat bi yow yaa ak mbër bi yéen a bokk entraînement noo gis entraînement. non sa xam nga chaque jour lu ñuy naan dafa pare chaque jour day pare moom waaw moom du bàyyi dara waaw boo xasee ba lëngoog moom moom boo paree da ngay naan ndox ñëw taxawaat. lu leer laa la wax <laughs> non maa ngi affaire yi waaw. Madoune Madou Ablaye am na dara de. ah. ki may tax Ndour Ndour waaw. kii mooy président fan si club Tapha Tine di Eliman Ndour. ma Eliman ñoo ngi lay jaar. tey li ma lay laaj. bër bi lu mu sol nii tey ban col sol nii. sol ak murit. sol ak murit la. magal gaa ngi waaj de. Ah, sol ak murit la. dañ koy daan nga jox nu Cobra ñu yóbbaale ko. Touba barke Serigne Touba. mais ni ngeen pare combat bi yéen fan si club en tant que président. fan si club bi pare nañ ko tous les côté waaw waaw tous les côté côté boo yaakaar ku ñëw Medina Régis dinaa la jox billet laala la Cobra nga dem stade. mais li neexul ma doon waxatal li. dinaa la jox billet laala la Cobra nga dem stade jox la oto. ban heure ngeen di bëgg a départ bu lieu de départ bi ban heure la. dix heures. parce que léegi lam ji comme day teel a tas. dix ku ñëw risis doonu fekk. waxal loolu bu leer. dama ne la dix heures fan club bi ku ñëw Régis doonu fekk. mais bi yoon bi est-ce que du ëpp doole bépp passé. wuli yaakaar naa liy jóge Bawol si ay ay ay kaar damay ñaan Jibi caw Ahmed Dieye maire wu euh, Ndiène Sera maire Ibrahima Fall Mbaye Dione Ibrahima Fall maa ngi lay woo waaw di woo Mbaye Dione waaw di leen woo ñoom ñëpp daal. ñu dimbalil ma booy ngir yàlla ak jëmi Serigne Saliou man ñoom rek man moom sama bopp mën naa koo gérer waaye nan ma dimbali ngir yàlla ak jëmi Serigne Saliou mi ma yaakaar ñu mayal ma booy ay billets joxal ma leen i kaar suñ ko defee rek sama xol set barke Serigne te nag maa ngi woo dongaay tarbu yi dongaay tarbu yi yëpp maa ngi leen di woo di woo séréer yi ah séréer saafen kuy naan futum ne joola maninke pël sama mbokk yi pël yi maa ngi leen di woo ma kenn. Omar Sakho Omar Sakho Omar Sakho laay bëreel te yaakaar ne wul yi xam nga gars yi damay dégg naan tawaatin mënul bëre waaye combat bi ñi yëg naan dóor mu daanoo di waaye dinaa koy yennu ba sa kaw dóor suuf lan père Balla Gaye de su Balla dama koy yennu ba sa kaw dóor suuf te lii ma lay wax nii lu leer laa lu leer ma ne la su leen neexee ñun dañuy teg ataaya naan ëwal deuxième balaa deuxième ba yegg yenu naa ko ba dóor suuf yéen journa yéen journaliste yi madun ñi ñooy fan si caméra bi laa lay leeral ah su yeboo nga am ay bët di xool Balla Gaye su ma ko du jeenu ba kaw rek soo ma rombatee ma duyu ma nuyu wala mu dem fa Yékini Junior demal rek wala mu dem fa Yékini Junior demal rek wala mu dem fa Yékini Junior demal Yékini Junior fa mu demoon mën na fa dem daal Bombardier daal ko de li daal Bombardier ak Boy Niang ah damay xalaat de ñu daw ne rënkum mu génn saako yi jàpp loxo bi wane ginnaaw. mën naa ne Tapha Tine amul dara lu muy xalaat wala lu muy sikki sàkk ci làmb quoi franchement. sa adversaire da joxe ay minutes. combat bi est-ce que bu taxawee xaar la yow da koy fekk wala da xaar mu ñëw ni mu ko daan moom mu ngi def point de presse wala open press maa ngi xaar mu joxe fa ay minutes incha allah. li xew suba kenn xamu mbër bu liggéey pendant ay mois nga taxaw parce que tey ñun dañuy ëpp physique lu ëpp 15 minutes xam nga loolu ay caaxaan la yàlla mi am daal maa ngi koy sàkk di ko ñaan yàlla suñu borom mi àndal ñu une minute sax buñ ko mënee daan mi ñu dem moo ñu gënal ko ma laa ci seen Balla Gaye mën a nàmm loxo yi mën a xool lu di mën a mu ngi def une mu ngi def une deux gaawal mu waaw teel duggi marché teel a taal teel pare rek looloo fi sës. parce que parce que booy xool ak air bi teel a duggi marché teel a taal teel a pare lii nii la demee. voilà mu ngi noonu quoi. nawet la ñu nekk. waa ji waa waa ji waa ji na xam ne ñun xaaruñu ko ci dara. kay waxay ay waxam gaaw ak yeex moom la engagé man tafaatin xaaruma ko ci dara man li ma liggéey laa ñëw appliqué. dama bëgg dama bëgg bu ñu dalante étincelle yi mel nit. mbojum kaane voilà loolu laay xaar ci moom incha allah